li yóbbu yëfi assemblée nationale bañ egg fi ñu egg tey ay accusations yoo xam ne euh, ba tey gisuñu preuve jëm ci ñoo xam ne ñu war na àtte élection yi. waaw gisuñu preuve ndax dañuy enquête bu enquête jeexee si ñu soo gis preuve mais li am si euh, li tax ñu dàq élection yi mais lu lu ñu mën a layal la lu leer la nañ mooy conseil constitutionnel wax naa la sànq ne ñaar mooy liggéeyam benn mooy saytu euh, constitution bi beneen mooy élection ñoom ñoo ko war a arbitrer mais conseil bi moo daanu arbitre bi moo daanu. ci naka. arbitre bi dafa daanu ndax dafa wane dafa lajj si surveillance bi mu waroon def si processus électoral bi ba mu am ñaar lu mu néew néew ñaari candidat yu jàll yoo xam ni constitution nee nañ waruñu jàll. benn fay mu wane fay foofu. Mhm. beneen conseil bi si boppam fi mu toll nii dañ koo jiiñ baaraam ne dañ fa ger ay àttekat euh, conseil bi si boppam ay at benn àttekat si ñoom porter plainte. Mhm. kon fu mu toll nii arbitre bi moom lañ wóolootul. dañ ko waroon disqualifié. parce que waa PDS ba tey ci loolu lañ nekk ñoom neen dañ leen war a dindi mettre en place benn cour constitutionnelle tey rek waxaat nañ ko conseil bi euh, lajj bi ñu wane ak jiiñ bi ñu leen jiiñ guerre ndax euh, moonu awa tey bu ñuy wax euh, démocratie bu avancé fu démocratie avancé saa yu ñu la jiiñee dara yow loolu da ngay toog xaarandi ba mu leer mhm. conseil constitutionnel fu mu toll nii man sama dégg-dégg laa sama gis-gis ñoom légitime ñu pour arbitrer élection